Eh, eh, ne ci yonante bi sallallahu alayhi wa lañ ko toxalee kon nangeen ko jëfandikoo buñ nemee ci téere masaalikul jinaan dañ fa fekk wax ji may wax Sëñ Tuubaa di wax ne wa asbatu ashyaa fihi tunqalu an sayidil anaami faltastamilu salla wa sallama alayhi samadu wal alihi wa sahbi wa man qad urshidu fukki mbir yaa ñaar mooy lan ba ci njëkk mooy woor ku mën a woor fukkee la fan nga woor ko ndax yonante bi sallallahu alayhi moom daana woor wax nañ ne bi mu gàddaayee jóge màkk ñëw Madina dafa fekk yahut yi di ko woor mu laaj leen lu tax ñu ne ko bis bii kat day bis bu màgg ci ñun ndax ci la euh, sunu yonent ba ñuy wax Muusa alayhi salaam muccoon mm, ca la muccoon euh, ca ca noon ya ca Firawna te it na ca la laboon ca géej ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen maa leen gën a yey ci Muusa daal di koy woor ba noppi nag Eh, digle ñu di ko woor wax nañ ne atamu mujj sax wax na ne bu ma fi deewoon fekkaatoon de danaa woor juróom-ñeenteel ba mooy eh, juróom-ñeenteel waaye fukkeel moom woor na ko ay yoon moo tax sëñ Tuubaa di wax ne kon woor ku ko ci mën na nga ko def ku ci mën a julli tamit ñeenti rakaa yooyu na nga julli ko buñ demee ci téere Sëñ bu nag leeral na julli gi nuñ koy jullee mu ne rakka bu nekk yaa ngi bu nekk yaa ngi ci jàng fatiha benn yoon ak qul huwallahu fukki yoon ak juróom boo ko defee dangay ngay julli ñaari rakka daal di sëlmal julliwaat yeneen ñaari rakka daal di sëlmal ak ku ci jokk ak mbokk ak ku ci sangu ak ku ci saraxe ak ku ci lewi say we maanaam dagg say we ak ku ci tus ngalo ak ku ci seeti aji tawat te doon ab jullit ak ku ci siyaare borom xam-xam ak ku ci raay bopp jirim bu dib jullit te raayaale ko dara waxuñ loxoy kese ab jërim ci lislaam nag mooy koo xam ne way juróom bu góor dafa génn àdduna bàyyi ko fi te te mësërugul maanaam mu nekk gone ak ku ci jàng lixlaas xul xulaaw ahad bam jeex junniy yoon ak ku ci yaataas ak njaboot ci eh, ay xéewal maanaam nga fexe ba bisu tam xarit dàqal sa njaboot bis ba ko jiitu ak ba ko mujj waaw ma dépasse bi yokk xéewali na gën a neex te gën a bari loolu mooy yaatal sa njaboot moo tax sëñ Tuubaa ne sawmun salaatun silatun wa xuslu sadaqatun taqlimu xafrin koxlu xiyaadatul marid sawru aalimi wa maswara asin liyatimin saalimi qiraatul ixlaasi alfanax sabat tawasiuna alal ayaali bay wafat muy fukki mbir ak ñaar mu ne sangu giñ ci sangu eh, eh, sangu giñ ci sangu nee na day fekk ràgg day teye tawat kon lu def la tusngalu giñ ci tusngalu day fekk ak ngumba yaatal giñ ci yaatal ak njaboot nee na day dolli wërsëg moo tax na wal xuslu fiihi xiila yan fii saqama wal iktixaalu fiihi yadfaul ama tawsixna fii alal ayaali yasiduna risqe mbir la yu ama am solo yoo xam ne yu mat a def la ah, sopp na it ku ci jàng xasbunallahu wa nixmal wakiil juróom-ñaar fukki yoon xasbunallahu wa nixmal wakiil nga def ko juróom-ñaar fukki yoon ba sopp nañ ko am na geneen ñaan gu ci toppit goo xam ne ni moo tàmbalee subhaanallahi mil al mizaani wa muntahal ilmi wa mablax rida wa adada niami wa sinat al arshi la malja wala manja minallahi illa ilayh subhaanallahi adada shafi wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha asaluka salaamata bi rahmatika ya arhamar rahimin wala hawla wala quwwata illa billahi al ali wa huwa xasbi wa nixmal wakiil nixmal mawla wa nixmal nasir wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima nga jàng ko moom it juróom-ñaar yoon xam naa danañ ko affiché ngir ñi nga xam ne nii bëgg nañ ko karmbat ñu karmbat ko ngir jàng ko yii nag day yu ama am solo yu mat a def ndax bisu tamxarit dafa doon bis bu bari ay xew-xew yoo xam ne bari na ay xew-xew yu ko sunu borom lëkkaleel waaye li ci am li ci ëpp solo rek mooy ñaan yi nga xam ne nii kat yuy musle la tey mosle ndax gépp ñaan goo xam ne day fekk rek eh, day ñoddi itam ay xéewal kon loolu mooy li ci ëppoon solo moo tax ñu ne woon nañ ko andi ngir jullit ñëpp man cee jariñu yàlla nañ ko def te dëppoo ceeg tawfiq ak ak ak xabul suñu borom defal ñu ci ak nangu noonu ñëpp ñu fekkee at yu bare te mucc ci musiba yeeg balaa yi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 in uridu illa al islaaha ma stataxta ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ausu billahi min alseytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim